waaye noonu la ñuy ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Mourou Mbène Fall di ko ñaanal baax ne mooy suñu jëwriñ di sëñ Amdi Khady Fall moom Cheikh Serif Assane Fall da nga koy ñaanal baax saa borom yàggal ko lool te wér ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ñaanal bu baax Cheikh Moussa Fall moom ko ñaanal baax saa borom yàggal ko lool te wér ko waaye di ñaanal jàmbaar ja nag ki nga xam ne moo war lii lépp moom la di ñaanal saa borom yokk ay leeram tas ñu ci barke barke maam Serap Fall noo ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp te baalaax ñëpp maanaam ni ñu ko mën a waxee daal ni ko sëriñ bi daan defee daal noonu la ko sëriñ Moussa di yokk a a a baax a baax a baax a baax ndax ku teew fii tey rek ak ku fi ko yokk waaye dellu wax ginnaaw loolu nag sëriñ daan wax doole rek koy ñaan baax mu yàgg fii te wér te yàgg taxaw te yàgg koo def te ko njaboot ga yëpp rek jafe ni ko da sëriñ bi daana ko waajal ci nga xamante mooy li commencé bun buñ toggee ndogu ajjuma ba set mm-hmm. ci la ko daan waaj waajal jëm moom ba àllarba àllarba yaakaar naa ci lan daan dajale addi yëpp yu daje fii ci biir kër gi ñu takk ñu takk buñ xëyee dem ay gàtt ci dalaga yàpp ko ci oto départ yóbbu ko njaarim jébal ko sëriñ bi buñ fa jógee buñ àggee sëriñ bi danañu danañu soññ ñaaxaat ñu soññaan ñu baax a baax a baax ngi ñu waaj a yéen ajuma yow ngir ngir ngir liñ a indi rek ji rek bu deesee ñu yokk ko baax a baax a baax a a baax loolee nag loolu la suñu Moussa a di doxee ba tey jii wàññëw ci dara da koo yokk ndax koo xam ne daa nga tàmbalee benn nag wala nga daan tàmbalee ñaar boo nee ba mën a tàmbalee ñett wala ñeent mm. kon da nga koo yokk waaye delloo ko ginnaaw xanaa di ko ñaan rek saa borom yàggal ko fi moom it te ko ba yéene yi waajur yu amoon ak naal yam amoon ci liggéey Sëriñ Tuubaa ak Maam Seera Faal saa borom lu koy ñottam ndax sëriñ bi daan wax ne yàlla amul kumbakat daan wax ne ndog yi lu ñëw rek di na ko sëriñ doon defee day wax ne nag li ñuy def nii lépp nag moom mhm. koo xamante ne def tab na lii ñuy def nii nañ ñëpp xam ne ñun sëriñ Aziz Fall lañ koy defal defaluñ ko kenn te loolu moom mooy lu wér te moo am te ndax doxin moom lay doxee li nga waxee dafa wér nit la koo xamante ne nii man damay wax ne Cheikh Moussa Fall a suñu Abdou si Fall bi ma yàgg naa ci kër gi trop lool lool waaye wax dëgg yàlla mosuma koo gis fenn fenn fenn foo xam ne la boo xam ne jataay way way di lay doon maanaam jataay way taxee bu ñu ko waxee mooy jataay yoo xam ne dafay toog di werante ko fekk ba suñu jon tey ji ba fii ñu wax ak yow doxin woon doxee saa dara ñun daan séq ak doomu aadama dara li ci rek mooy li nga xam ne mënu daan liggéey rek loolu wéyal di ko liggéey waaye jëmi boobu moom chance dara ci ci ci ñu melan kon noo ngi ñaan baax saa borom yàgg fi di waaye waaye di ñaanal nag ñi nga xam ne ni ay rakkalan mhm. ak ak i jëwriñ saa borom yokku leen waaye di ñaanal baax Cheikh euh, sëñ maam Cheikh Fall mi nga xamante ni mooy rakam topp ci ginnaawam takk deram gi nga xamante ni buggul leen leen leen soxlu dara lu yitte sëriñ a ak bëggu sëriñ bi noo ngi koy ñaanal baax saa borom gën koo kàttanam gën koo dimbali ba lam ca bëgg am na mu ko bëggee mu def ko noonu ci barke maam Cheikh Fall euh, jëwriñ kàddu yi soññi na rek di soñ caali bi yëpp rek góor jigéen mag ak ndaw fu waay nekk rek li ma waxoon démb benn daje laay waxaat damaa wax ne weeru koor ka damaa jàpp ne su teroo hmm. ab Baay Faal bëgg dara dara dara dara dara lu rek lu jëm ci ndogu ya weeru koor moom bu xaa saa bu xasee teru rek amul benn Baay Faal boo xam ne war nga am yitte dara dara yitte yu jëm sa bopp lu jëm ci ndogu ya damaa wax ne ku xëy di liggéey rek di ma màjjali loo am boo ci génnee na jàppale dund la ci des ndogu ndogu la war a jëm kon nañ ko bàyyi xel baax muy ñi nekk fii ak nekk bitim réew yëpp ñu maa ngi soñ ñëpp ngir ñu laxasaayu baax gën a takkaayu baax a baax a baax te xam ne lii a tàmm rek la kon nag nga des na yeneen ajuma te ajuma jot sëriñ bi ko bëgg a yokk waaye fas ñu ko dellu ginnaaw te saa bu yóbbuwoo dina ci boole adde joo xam ne da kon nag na sëriñ bi téew dal loo ko jox rek yóbbu na ko sëriñ Amdi Xadi Fall sëriñ Amdi Xadi Fall yóbbu na ko maam sëriñ Tuubaa maam Seera Fall kon nag ñoo ngi ba njaaram ci ba ñu jàpp liggéey ba te ànd na ak i rek ñu am fi ñetti téeméeri at ate yontu yàlla noowa bu ko yàlla indiwaatoon sax doyut ci ñoom ndax kon lu baax day gën a yaatu rek wallaahi lu baax day gën a yaatu rek lan mooy samay tànk hmm. xanaa sëñ Assis moo doon sama xarit di sama wëllëri hmm. bëgg sama cheikh yi sëñ Basak sëñ Fallou bu ma ñëwee teraanga ju ne teral na leen ko ndeysaan baax laa biir bëgg bëgg ñëpp rek moo doon sama xarit ma fi ñëw mu sama cheikh teraanga ju ne teral na leen ko wallaahi ñu koy ñaanal yal na yàlla yokk ay leeram te lim fi wocc yal na yàlla def ñu am barke barke ba nekkoon Màkka ak Medina ak Touba ak Njaareem lépp yàlla bu leen ci kenn appale te te yàlla yokk seenu fan def ñu am ñetti téeméeri at barke Serigne Touba njabootu Serigne Touba gépp ak maam Cheikh gi yàlla na leen yàlla defal fanu yonti yàlla noonu ak mboolem jullit yëpp. di nuyu mag ñi di nuyu ndaw yi kii nag maanaam li ma booleeg moom dama yore ci oto yi di dem ak a ñëw saa yi ma dëppee jënd sëriñ ci moom mu ne ma am naa fi daayira maam sape ma ne ko bind ma. booba it xaw ma ne moo sama sëriñ bi suñ Murtala mu suñ Abdou Sakkour. ay kii lañ ay namtuwati lañ ay wolore lañ ay mbokk lañ benn lañ waa kër maam Cheikh yëpp benn lañ ah yàlla def na daaw bi ma fi ñëwit li ma yoroon li mu indi te moo ko gën may seere sëriñ bi di seere mbooloo mi ne maanaam daaw ba may ñëw fii ak ren jii man xamal naa sama bopp ne yokku naa bu wér yokku naa bu wér a wér a wér a wér a wér a wér waaw yokku naa ndax ba may ñëw daaw la ma andi woon defe woon naa du waaye maam Cheikh jàpp ci ba ma yóbbu leen ba delloo leen ba egg da ci góor góorgóorlu di ci góor góorgóorlu ba ñuy maaja màggal lañ ma jox bii ma yore ko di ci tedd di ci teral sama njaboot waaw keroog ndog yi fii laa yendu kër Serigne Abdou Sakor suñ jógee it fa leen jëm kon ñuy sant ñëpp di ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi mu wér a wér a wér ñun ñi kenn bañ a manqué ca di ñu bàyyi xel itam ci support yi fasanti ko yi nga xam ni moom la ñu àndal ñëw fii tey ci kanamu sang bu tedd koo xamante ni taxawaayam ñëpp ràññee nañ ko mu di kër sëriñ Abdoul Aziz Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall fii ci Xayra 2 ñu koy wax Xayra Fall naka noonu itam ci suba bi ñëwee ràññee nañ fi addiya yi nga xam ni sang bu tedd bii di sëriñ mu euh, Cheikh Moustapha Fall jël na ko boole kooki rakkam sëriñ maam Cheikh Fall ak mboolem njaboot gépp ñu jébbali ko jëmm ju tedd ji nga xamante ni moo di sëriñ Amdi Khady Fall moom sërif Assane Fall naaru Kawsar yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram waaye tam nag ñuy fàttaliku suñu jàmbaar ja suñu xarit ba suñu wëllëre ka seeyoon ci maam Cheikh Ibrahima Fall ki nga xamante ni léppam da koo joxoon Cheikh Ibrahima Fall mu di Serigne Abdoul asis Fall yaakaar naa dut ñu ko fàtte mukk ci taxawaayam dut ko fàtte mukk ci pas-pasam duñu ko fàtte mukk ci ay jëfam ndax sëriñ Abdoul Aziz Fall day man mën naa wax ci turam mën naa wax ci kaddoom ndax jëmm ji nga xam ni moo ko fi toogal tey di xalifaam di jëwriñam di Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall taxawaay boobu rek moom la am ndax yar na ko léegi wax naa ko fam ko war a yare jàngal na ko nañ ko war a jàngale waaye itam tarbiyé ne ko teg ko ci yoon laata muy dem di ko fa bàyyi ndax olof yi dañoo wax Fall ne dem am na euh, baax am na solo waaye bokk na ci li gën a am solo mooy nga baax ba pare dem bàyyi ku baax su fekkee naal yoo naaloon la wala sumb yoo dana ko àggale ba naalaatal la yeneen naal sa ginnaaw ndax xam ne lii sa bëgg-bëgg la su fekkee itam ab ab samp la samp boobee dana ko rokkas ba nga xamante ni kenn du ko mën a buddi waaye itam ko yaay dellu gannaaw waaye sëriñ Moustapha Fall mii defal na way juróom sëriñ Abdou Aziz Fall loolu yàlla na ko yàlla kàttanal su dee njëmbate itam dana ko suuxat suuxat goo xamante ni dana am meññente dana am tóortóor ba ñëpp mën cee jariñu ba mën a keru ca ker ya moo tax tey jii ngeen gis soxna Aminata mii ñëw tey jii ca doonoon sampab Serigne Abdou Aziz Fall nekkoon naalu Serigne Abdou Aziz Fall mu ànd ak moom àndin wu rëy woowu ba tey ji gis ko mu jël hadiyaam daan ko indil sëñ Moustapha Fall sëñ Abdou Aziz moom sëñ Moustapha tey jii ñu indil ko sëñ Moustapha mi nga xam ni moo ko fi nekkal kon yaakaar naa loolu naal yu am sola la waaye itam li fi waajuram mu sàmm ko lool uuf ay rakam yar ay rakam teg leen fa leen waajuram tegan bëggul dara xëccoo dara leen rafetal ab ànd lay jël àndu kilifa moom mu def ko tey jile kon yaakaar naa ni suñ fi masaana ñëw fii moom mii mooñ daan dalal fii ñu fekkoog jukkeeb alxuraanul karim ba ma a toog ci loxoy neen daal ñu yëglu sëriñ bi tetteñu ban dem ci sëriñ ba waaye tey jii nag bëggu ko woon waaye yen bi ci kawam la tege yàlla na ko sëriñ tubaak ak Seex Ibra Faal tëñal ba nga xamante ni bii yen bi dina diis lool nag waaye nañ koo tëñal ba nga xam ni day da koy tiim rek waaye bu ko laal tey ku gis xàbbon yi mu yóbbu yaakaar naa yokkute la ku gis hëddee jëm ca teg nga xam ni yokkute la ku gis nam jiitale ay rakkam nga xam ni yokkute la kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal fan yokku wér gi ñun nag dangay suñu mag di suñu sëriñ ñu bokkoon sëriñ Abdou Aziz Fall nga daan teete ci jëmmam jë ba tey jii lii xew kon nag deen xam ni yaay jëmmam tey yaay ko fi nekkal yaa ko fi toogal yaay jëwriñam ci kër sëriñ Assane Fall yaakaar naa ni ca itam mate nga ko sëkk yal na yàlla kattanal ak mbooleem seerak mbooleem taalibi yëpp ci barkeb Seexul Xaddim fii suñu fi wax suñu xol day tooy ndax cofeel guñ am sëñ Abdou Aziz Fall ak euh, nuñ fuñ ko tegoon ak fu mu tegoon suñ jëmm yi li ñuy xeebu xeebu kon su ko defee sëñ bi dañu lay jébbal kàddu gi su ko defee nga sant soxna Aminata gërëm waaye itam taalibe yi nga xam ne kenn ku ci nekk ñu ngi ci biir réew mi bitim réew yëkkati seen i hëddiya jaarale ko sa loxo nga jébbal ko Seera Fall yaakaar naa tey ku fi ñëw xam na ni lépp lu la taalibe jox boolewaat nga sa ñaq boole nga ci ñaqu taalibe boole nga ci sa njabootu bopp jébbal Seera Fall tey kon téye woo yàlla na la yàlla dooli tawféex bu wér a wér ñu jox la kàddu geeg euh, taxawaay bi nga xam ni suñ jàmbaar jëm suñu Abdou Aziz Fall daan nañ ko fekk fii ci mbaar mi euh, mu mu ko daan yëkkatil kàddu yi euh, ci Cheikh Rafal waaye nag yàlla na bi yàgg barke sëñ Touba. ñu ngi nuyu ñëpp di sant bu baax di jiteel ci nuyoo bi siñ kilifa yi Cheikh Mamadou Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko ko ak sëñ Amdi moom sëñ ñaan suñ boroom yàggal leen lool te defal leen wér waaw di nu ñi ñi ñi nga fekk si ñëpp tamit ñoom anal mel bàyyi seex ngoog toog am na ñu fi nekkoon ñoom sëñ làmp ak Ablaye Niang ñoom dañoo dem liggéey ba waaw ñuy soxna ñi fi ñëw jël ñoom Saliou Kane tamit moo ne toog moom ci kër gi la na Aminta mi ak soxna yi mu àndal ñëpp soxna Faal na Njaay soxna Baan ak xale yi da bàyyiwuñ kenn di sant nag bu baax ak bàyyi laat mais moom la ànd ak bàyyi gay mais waaw moom daal ñuy wax ni daal ñuy euh, gën a gën a soññ suñu bopp rek waaw gën a soññ suñu bopp di di di ñëpp tamit ak képp kuy dé dégg suñu kàddu rek hmm. ten war laa euh, soññ ah ñu ngi lay soñ ci liggéey bii ñu ne waaw muy muy muy ndog yi lii kat sëñ Tuubaa woon hmm. waaw moom euh, demoon ci maam Cheikh waaw moom moom it mu am ci mbégte ànd ci xol bu sedd waaw lu lu am def ko daan lu ma ci waaye ku ma ci jox lu toll ni tànk mm-hmm. ma defal la ko foo am doo yàqu àdduna doo yàqu doo doo yàqu àlaxira mm-hmm. waaw loolu loolu nag mooy mooy dox ba tey waaw ñu tàmbale woon ko ci fukki ndab ak ñaar ak ak ak ak benn super super boo xam ne ganaar la daan te loola noonu fi ne nii kër kër gu dugg rek xam nga ne romb na loola <laughs> waaw romb romb na ndax loola booba xëy na jamono fa toll rek waaye yéene yéene moom mooy mooy fii fii jëf ji fii jëf ji nekk tey waaw te xam naa ne dana ko romb it waaw xam naa ne dana ko romb moom waaw ndax suñu waajuree maa ngi fàttaliku at moo xam ne bi toggee téeméeri bool ak fukk ak ñaar mhm. fekk kër Sëriñ Asan boobu sëñ bi dañ <laughs> moom moom wan nañu ne jëf ji yokk na ndax ban koy tàmbalee hmm. fii nii kër Sëriñ Asan fii bi ginnaaw sëñ Asan ñun ñoo ngi taxaw te boobu boobu fukki ndagam fukki ndab la woon ak ñaar kon bu demee ba def téeméeri fukk ak ñaar moom ñun ñu ko fekk woon moom xam xam na ni yokk na bu baax xam na ni képp ku yor it yokk na ko bu baax hmm. ñun ñu koy ñaanal mu gën fa yàgg rek te ñun ñi tamit ñu yàgg ci ginnaaw suñu borom defal ñuy xéewal te defal ko mbokk taali bi yëpp tamit waaw moom daal ñu ngi sant ñëpp di leen soñ soñ ci liggéey bi daal moom xëy xeebut yéemut mm-hmm. waaw sëñ Tuubaa moom loo ko jox rek mu yooyu na lu ko ëpp waaye kenn du fa kenn du fa indi nag loo loo amut waaw moom loo waaye loo fa indi nag moom mën na ko ful delloo la ko waaw waaw mu néew mu bari kon ñaan suñu borom dooli xéewal bu baax a baax a baax waaw te gën leen a bu baax soxna aman tamit ñu ngi koy sant bu baax moom ni mu ko waxee rek daal ñëw fii di fekk sëñ bi mu koy wax dëgg yàlla ni ko waxee nii waaw yàgg na fekk sëñ bi lool di ñëw di ko fekk di ñëw di ko fekk ba tey ji mu def daayira soppe maam si Ibra ñoom ñi ci bokk am na ci ñoo xam ne moom kenn du ne sax ndax ñëpp ay Baay Faal la mm-hmm. waaw waaye ñu bari dañoo indaal seen koor kon kon moom ñoomit it bëgg maam si Ibra ak xëy liggéeyam bi rek moo leen ci dugal waaw ban ci bokk di ci bindu man mi xamuñu ma mhm. waaw xëy na sax boobu sëñ Abdou Aziz dañ koy dégg rek waaye waaye gisuñu waaw kon kon bëgg Cheikh Ibra bëgg bëgg sëñ Tuubaa ak xéemim liggéey bi moo tax ñu ñëw fi daaw lañ njëkk a ñëw ren ji ñëwaat fi ñaanit yàlla yàlla nañ fi àgg ñëw waaw te yàgg ñu fay fekk ñun ñëpp yi suñ borom defal leen wér lépp lu ci waaye def suñ borom suñ borom fulal ko ay milliards de waa waa te def ci njaboot gi yëpp tamit waaw sàmmal leen njaboot gi ban ban aw leen ci liggéey bi waaw barke sëñ Fallou moom daal di gën a soññu ñëpp rek moom la taalibe yi ñu réew ak fii ci fii fii ci biir réew mi mm. ñëpp nag ñoo ngi ci waaw ñoo ngi ko ànd ak ñun moom fu fu koor gi jotee moom loo gëj a gëj a dégg <laughs> nit bu koor gi ñëwee rek da nga ko dégg waaw léegi sax doo doo woote di soññu kenn ñoom ñoo ko xamal seen seen bopp waaw kon ñoom tamit ñu ngi leen di gën a jaajëfal bu baax a baax a baax a baax xam ne Sëñ Tuubaa daal moom li liñ dégg si am na xarit di ko wax daan ne baax bu tooy xëpp la doon suuf su suuf su nangu te barkeel xam ne moom kuut sa sa jiwu def ci lu lu ne mën nga ko cee amee hmm. kon kon kon mooy liggéey Sëñ Tuubaa bi rek daal lu ci waay def lu ne rek yàlla na ko suñu borom fulal dafa ko xéewal yu yaato yaato yaatu tem tem tem ànd ko wér hmm. waaw barke maam Cheikh Ibra Fall yow ñu ngi lay sant bu baax sëñ Diop waaw sëñ Moussa ñu ngi lay sant bu baax ak kii nga àndal hmm. mbow yow it wax yàlla yàgg nga sëñ bi lool doon doon ko doon ko nga njaareem ñëw fii ci kër gi ba tax na at mu jot saa suñ tollee fii rek nga am yéene ñëw ki feeñalaat liggéey bi hmm. ngir bëgg ñi ko ñi ko gisutoon gis ko waaw xam ko maam ñëpp it fas yéene ci soññu rek waaw moom daal ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di sant bu baax a baax ñaan yàlla na koor gi ñu dugg ci ci bismillah àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw sun borom bu def ñu fekk ko ay at yu bare bare bare bare ngeen déggee kàddu yooyu xam ni kàddu yu dal kàddu yu ku ñu yar kàddu yu koo xamante ni ku ñu tarbiya la ca kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Abdou Aziz tey ñoom lañu gisaat nii ci wetam ñu ànd ak moom liggéey bi ñenn ñi mu ko waxee départ nañ yóbbu nag ya ca sëñ Amdi Khady Fall moom itam incha allah ni ko way juróom ma daan defee rek noonu la ko fas yéene defee topp ci ginnaaw sëñ Amdi Khady doon ab taalibe doon itam jëwriñam nekk ci liggéey bi sax ci dàkk ci du ci jóg kon nag képp koo xamante ni ci kër gii nga aju muy kër sëriñ Abdou Aziz Fall ca Cheikh Mouhamadou Moussa Fall mii doon sa jëwriñ li ci am solo mooy nga xam ni lépp loo ko mas yónnee ak lu mu man di doon su tàbbee ci loxoom dugal na ko ci loxool Cheikh Rafal moo xam ci liggéeyu université ba moo xam yeneen liggéey yi nga xamante ni bi yëpp ñu ngi koy santaane ndax moom day damay faral di wax ni la way juróom wa nekkoon moom mii ca la nekk fam tegoon tànkam fa la teg tànkam kon ànd ak moom nag dal na xel bu baax a baax a baax a baax ndax ànd boo xamante ni saan wuy jam ay xeer yu bëri xeer yu jam euh, ay picc yu bëri mooy ànd ak sëñ Moustapha Fall mii ndax leer na ni ma am na fay moom mii ndax tarbiyewu na ko ci way juróom ci suñu kanam mu leer nañ ñun ñëpp ñoo ko fekke mosuñoo gisu dàllam fii mosuñu fee gis mbaxanaam mosuñoo gis mu toog fu may toog ci wet gi fi nii jaa yor jukkeeb alxuraanam di jàng li fekk sëriñ bi jox ko ndigal ca loolu lay sax saa yu ko sëriñ bi joxee ndigal mu nekk ci leneen la lii mu daan def nii lii mu def nii tey toog yabal ay jëwriñam moom la ko sëñ bi daan defloo kon nag tey jii mooy sëñ Abdou Aziz Fall di moom toog toogaayam yàlla na fi yàgg lool ca ànd ak wér kon daal leer na ni ma kër gu nekk jaar la sa hëddiya am na solo waaye itam jaarale ci loxoom bii day am na solo lool ca doy nañu lool itam ndax xam na ni lépp ci Seex Ibra Faal rek ci la jëm ca bàyyiwul dara lu ko waay jox su dee benn dana ci dolli fukkam jébal ko Seex Ibrahima Fall kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ndokkeel baax di ñaan yàlla euh, ñu fekk ko ay déwéni déwén kon incha allah rabbi ba alxames itam ñaareelu euh, addiye itam incha allah namm nañ ko àndeek moom nii ba koor gi jeex ci kàttanu yàlla ndax day masuliya boo xamante ni suñu diggante ak boole la suñu diggante ñun mii ñun ñi ak jëmmam ji ca sëñ Abdou Aziz Fall boole ñoo moom ca sëñ Abdou Aziz Fall nekkoon sama buntu man ci biir kër Seera Fall ay yooni yoon waaye itam nekkoon koo xamante ni maandu ga dëggu ga bëgg Seera Fall ga njub ga waaye itam sàmmoonteeg mbooleem aqi doomu aadama oyof lool ci suuf ca ci kaw ca fees lool ci suuf mooy sëriñ Abdou Aziz Fall moom sëriñ Modou Moussa Fall yàlla nañu ko yàlla fayal ci yàlla yokk ay leeram bi yaay Seydina sallallahu alayhi wasallam sëriñ Moustapha mii mu bàyyi ko fi yàlla bàyyi ko fi mu gën fee yàgg lool ak ay mbooleem ay rakam yàlla nañ ci yàlla rus ci barkeb sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.